asalaamaaleykum alaikum yi dama ci de di ànd ak ci sen émission tam tam niñ koy defee nak alarba bu ne tey nag ñu fascinéti rek diiru waxtu euh, gungé len ci sen émission mam ak ci mbégte ci ay invité une fois n'est pas coutume tay nak suñu invité yi euh, machallah allah ñu euh, xawa bari wayé nak lépp pour bégal len sama jor nak ma fa sañit ci ànd ki nga xamné ne di Tidiane Camara ne festivalu Foundiougne Tidiane ñu ngi lay dalal ci euh, émission Tam Tam euh, di la jaajëfal ci li ñu ici man tam maa ngi leen di jaajëfal di contane toujours di ñëw ci plateau Tam Tam surtout que 15 euh, quinzième édition festival Foundiougne bi. RTS 2 moy télévision partenaire. ngi euh, culture bi kon jaadu ñu ak bu ci kanami dinañ waxtaan euh, euh, festival bobulé di festival am ci weekend bi nga jëm René Gomis René Gomis directeur de l'efficacité des programmes de World Vision World Vision nak ñi fi nga xam ne foofu la ñu war a dem ci weekend bi war nañ ko xam bu baax parce que da ngeen di yëngatu foofu René maa ngi lay dalal euh, ci biir tam tam. <coughs> ñu ngi lay jëfal merci beaucoup pour euh, l'invitation. Euh, c'est un plaisir de partager ce plateau avec euh, mon doyen, <laughs> parce qu'au-delà de ce que je fais, je, je, suis aussi dans la culture. Tout à fait. Mais je suis là pour les 30 ans de World Vision. mu ngi noonu ci kanam euh, dina ñëwaat ci li nga xam association ONG di euh, World Vision nekk fi nak qui at ak léegi alxames nag àllarba bu ne da ngeen di and ak ñi nga xam ñoo di seen chroniqueuse ku melni Birgis ci cinéma Birgis maa lay dalal. Euh, Yolande maa lay nuyu di nuyu ñima bokal plateau bi euh, damay am mbégte sa su nek di and ak yeen ci cinéma tay nak ci cinéma ñu war waxtane ci benn série bo xam actuellement ñëpp ngoy ngi koy seetaan série baa tudd Lifeline ñu wax ci and ak euh, Mara Azizou Ndiaye xam naa bu ci kanamee ñu ñëwaat ci bu ñu ak suñu invité yi lé connaître ses droits connaître ses droits mi daal di. Mhm. maa ngi lay lay fay bu baaxa baax comme si bien dit connaître ses droits c'est chaque mercredi muy ak ak élève bi nga xamné doomu aadama ak

tàmbali nak maa ngi leen di wax tay ñu fas yéene ak ñi nga xamné euh, ñom ño tok ci sama ndeyjoor di nak ay invité wu euh, tam-tam tay euh, lu melni René Gomis nek directeur de l'efficacité des programmes de World Vision World Vision nak ku ko wax xamné né ne ONG la en général ñu ngi yëngatu lu bari ci biir région yi duma def lu dul bàyyi kaddu gi ak René Gomis mu ñëwaat ci li nga xamné mom modi mission World Vision ñi fàttali nak ñu ngi fete sen fanweeri at fi ci biir Sénégal <coughs> merci beaucoup ñu ngi leen di jaajëfal si euh, nous leen ñu accueillir fini, bon World Vision comme noo ko waxee ah, ñun ñu ngi si gox-goxaan yoo xam ne ñoo gën a métti biir Sénégal fi on est dans dix régions mais ñun suñu mission mooy le bien-être de l'enfant, enfant. mooy mais aussi xeex ndóol. Mm-hmm. boo nee euh, bien-être de l'enfant xalé bi bu dans des familles yo ont ngi des bokk na mission mais après 30 ans après fanweer at yo xam ngi fi Sénégal il est bien quand même ñu taxaw un certain moment ñu seetaat un rétroviseur ñu xam lu ñu def mm-hmm. voilà li ci ak li ci bon effectivement def nañ ko ba après dañ célébrer mm-hmm. célébrer ces 30 ans là parce qu'il n'est pas donné à tout le monde ngam 30 ans <laughs> alors 30 ans Tibir Sénégal Sénégal mm-hmm. profondeur. vous mm-hmm. euh, euh, bu doon une Vision de euh, indi un bilan positif lan moy un mm-hmm. sen bilan. ah lu bëri lañu def. lu def comme ñun ñi ngi si yu par exemple éducation santé consort tout ça mais lolé mëna jox exemple hein. Moi, on a pu investir quelque chose comme plus de 123 milliards en 98 et 2016. xam ne en CFA c'est en CFA ñaa gis léegi boo aussi on a été présent dans treize catastrophes mhm. boo jëlee euh, actuellement euh, li wax euh, microcrédit ñu ngi gunge plus de quatorze mille femmes mhm. da ngeen di lebal jigéen ñi mhm. xaalis ñu ñëw di fay non dañu am benn filiale de microcrédit boo xam ne loolu mooy mais en même temps de leen di accompagner accompagner les seen projet yoo xam ne pour xeex ndóol bi par exemple boo jëlee école on a plus de trois cent cinquante classes yoo xam on a construit euh, on a plus de 600 forages et plus de 500 km d'addiction d'eau. Mhm. On a on a travaillé avec plus de 50 bailleurs ils sont du privé du public euh, par exemple au niveau personnel tey nii

Euh, depuis DAO, dañu avons une stratégie pour baisser. Mais si stratégie pour baisser, boo xam 2016 2021 L'objectif objectif principal bi d'ici 2021 qu'on puisse toucher 8 millions d'enfants au Sénégal 8 millions d'enfants au millions d'enfants bu ñu région yi nga xam fa ngeen di intervenir région mais si le Sénégal lépp hein Sénégal parce qu'il y a un mécanisme comme le plaidoyer on utiliser pour mon ces 8 millions d'enfants Ils bénéficient, par exemple sur des euh, pour les enfants quoi. D'accord. -hmm. en tout cas euh, ñu ngi leen di souhaiter euh, joyeux anniversaire. merci ans pas un jour Bon, noppi nag di leen mhm. ñaan aussi di leen encourager. Mhm. parce que c'est pas facile bu mhm. ay nit di indi seen alal ci biir dëkk bi di gunge aussi ay ay famille jaadu y yenn saa yi ñuy toog di taxaw seetlu xool lu ñu de façon World Vision yàgg na ak Sénégalais yi kon que dañ leen di gën a ñaax yéen mi nga xam ne Fatick euh, Louga région yi nga World Vision la alal bu ci ngeen euh, ba parce que lépp ci xalé bi euh, ci famille bi ak ci encore une fois René Gomis nek directeur de l'efficacité des programmes World Vision sank nak ma ngi festival Foundiougne week-end n'est-ce pas monsieur Camara mu événement bo xamné ñu dañuy di koy xaar te nar ca bëri. te neex te bëri. waaw neex te bëri loo xam ne xam naa ne dañuy ànd ak yow rek nga wax ñu lan moo fas yéene nekk festivités yi ndaxte ci week-end bii lay door. festivités yi je pense que suñ ko bëggee tënk. Mhm. rapidement mun nañ ne festival bi dina door ajuma. waaw ci takkusaan. Mhm. cérémonie officielle d'ouverture waaye bu jeexee nag si guddi gi dañu war a am gan boo xam ne bii bu rëy lay doon. mooy Jaliba Kouyaté. Mhm. jóge Banjul nak doon artiste sénégambien bo xamné bi Tanga. ah fofu dina tang buñ jéxalé samedi matin ñu def ngandum waxtaan. Mhm. conférence publique. Mhm. avec un éminent professeur Mamadou Diouf. waaw ci thème festival bi. tourisme culturel et concept xam sa gox. Mhm. parce que ñoom dañ am richesse. sur le plan culturel. mais amna sénégalais yo xamné yi sax xamuñ sen gox. la. donc waxtaan boobu man dama ko jël comme un cours magistral. Mhm. ñu war ko def ci salle des fêtes bi di ci mu doon public ñu war ci waxtaan. ku ci nekk xel li. dëgg la après samedi après midi. ñu def rawante gaal. waaw rawante gaal sport la bokk ci mais sport culturel. dëgg la dañuy dellu si rek ci thématique bi. Mhm. tourisme culturel et concept xam sa wax. Mhm. après rawante gaal bi samedi ci guddi ñu def benn plateau beneen plateau boo xam ne bi suñu groupe culturel yi ñoom ñoo koy développé. ñu ci mel ni Zara Mbaye waaw kooku ndaga la bokk la ngoyaan mhm. ñu ci mel ni jaatawaali do ah dina euh, euh, ah, ndaga bi la mais beneen bi nga xam ne moo am importance aussi te ñu mën ko wax moo di jaatawaali ndong de Mbassis waaw ñu bëgg orchestre boobu aussi nit ñi xam ko au plan international mhm. dimanche ñu xëy permettre ak gan yi nga xam ne fes Fort de France Martinique mhm. c'est l'association que Léopold de Martinique waaw ñu ñëw seet si suñ tur mhm. te Martinique c'est msr Senghor mooy Sénégal mhm. Aimé et Léopold Sédar Senghor c'est toute une histoire Nous avons lu bari luñ ci avons fait un jumelage entre une école de Martinique et une école de Nous d'une def aussi carnaval Foundiougne Martinique Nous avons masque lañ masque. dinañ ànd ak acteur culturels yi Foundiougne ñu def ngandum déboulé sur les artères du Foundiougne mhm. ñu tëjee nag festival bi làmb waaw dañ foog ne làmb ñun rek ñoo ko moom mhm. Martinique bi ñu leen ko njëkk a yëgal ñu ne dañu ñëw dañu ne nañ leen bàyyee drapeau de lutte traditionnel bi déedéet kay loolu rek mooy wane ne festival bi am na ñam waaw te ñi ko war a développé nag mooy yéen ñi RTS 2 te xam naa ne di ngeen di ngeen ko def ba mu saf sap <laughs> kon nak mu ngi noonu euh, weekend bi moom ñun ñëpp ñu ngi euh, fële fu ñun euh, ci FESFU bi mu nekk 17e édition war a commencer vendredi. Mhm. te daanaka kan moo koy ibbi ministre de la culture. ñun nag dañ dañ bari ay kàngam ci gouvernement waaw waaw waaw. région de Fatick. waaw nous sommes bien servis. macha allah waaw donc. képp koo xam ne kii rek yaa ngi ci biir moo xam ministre de la culture notre ami mm-hmm. Mbagnick Ndiaye mm-hmm. ministre Matar Ba ministre des sports Abdou Latif Coulibaly mm-hmm. ñooñu ñëpp ci suñ gox lañ bokk bon ñoom ñëpp ñu ngi leen cay xaar waaye nag bu leen fàtte ne aussi président de la république Macky région boobu la bokk moo tax ñu tuddee ko mbir mi dëgg la waaye nag péncum laga bi ñu ngi ko tuddee Pape Janko waaw maire Toubacouta parce que n'oublions pas surtout Toubacouta fait partie des plus belles baies du monde. Effectivement. Et nous sommes par l'organisme international du tourisme dans l'année du tourisme. Effectivement. Moi, année de la culture. Hum. bon nag kay yëf yi moom frank laayu na. jeex na tàkk li ci mën a rek. ñaan aussi ñu gën a culture tout à fait. mu ngi bon nag mooy rendez-vous ñu ci ñëpp parce que xam naa ne di ngeen ci def lu am solo. incha allah di wax ne également rawante gaal bi. ñu ngi ko tuddee Ablaye Mactar Diop. le mhm. grand serigne de Dakar. Euh, lamb ji ñu tuddee ko waa Martinique yi. bon kay yëf yi fi mu nekk nii. moom farankulaayu na li nga ci wax a ci leen. Hmm? waaw rapidement. Ndiaye mhm. euh, Camara. maa ngi gis yaa ngi expliquer li nga xam ne mooy euh, exposé bi y' a beaucoup de programmes. Mhm. mais dama bëggoon xam comment vous faites pour couvrir charge budgétaire yi yëpp parce que xam nañ ne que li ngay wax ni yëpp comme comme laaj na koppar bu bëri. comme comme bu baree baree baree bare mais ñun dañ bokk ñi gëm né ñun culture. Mhm. dañ ci dafa wara mëna dem dafa war a dem. Mhm. xam nga lo gis ci aduna conviction la. effectivement tay ji on n'a pas encore bouclé le budget à 48 heures de l' événement. Mhm. mais loolu war nañ ko mëna wax lancer. ana mère Fatick bàyyi la. <laughs> Wa lolu yeen nañ bàyyi ngeen gëstu ko. man je préfère que je préfère que li ngeen may laaj. Ah laaj autorité yooyu. kon ne leen waaw nga xamné ne Sénégal la. Ah. lan ngeen ci def. jeex na tàkk dinañ len ko laaj pour le moment man dal ma ngi len di séntu. Ah. le président les ministres. Mm-hmm. ku ci nek na ñew mm-hmm. japp ci parce que li ñuy def pour njëriñu Sénégal. ya ko waxal sa bop ba kàngam yi nek ci biir euh, gouvernement bi te dëkk Foundiougne dekk Fatick bari nañu kon nag na ci ku nek def euh, loxom rek yefi dal di dem kon nak ce week-end RTS de fas and ak yéen dem ba Fatick di la jaajëfalaat encore une fois bu baax waaw consultation suñuy nous yo un étudiant 50 mhm. promotion mhm. doon ay étudiant nous 150 pour parents mhm. Et l'olive yëpp ñu war ko à leurs frais ñu xam aussi la santé dafa ànd éducation ànd culture Les enfants ñu ngi et je pense que c'est joindre l'utile à l'agréable le rendez-vous c'est Foundiougne le rendez-vous c'est Foundiougne euh, ñi nga xam ñoo World Vision ñoom tamit euh, di fêter 30 ans euh, d'existence mm-hmm. Fichi, Sénégal mm-hmm. Nous tamit da ngeen di prévoir festivités oui déjà il y a de cela deux semaines mm-hmm. place de l'Obélix.

parcours World Vision voilà voilà <laughs> bëgg nañoo ci sargal sunu partenaire yoo xam ne ba léegi y <laughs> euh, croient en World Vision jàpp nañ te bàyyiwuñu waaw jàpp nañ te bàyyiwuñu mais aussi bëgg naa def benn appel waaw euh, parce que lépp lu képp ki yëngu si mbir xale <laughs> ñu ngi lay oo nga ñoo jàpp si parce que en 2021 xale huit millions d'enfants sénégalais ñoo ñu taxaw ñu laaj ñu yenn qu'est-ce que vous avez fait pour nous ça c'est très important c'est très important parce que c'est l'avenir de demain mm-hmm. xale ku def ci moom rek def lu am solo mm-hmm. di jaajëfalaat encore une fois bu baax sama invité René Gomis que directeur de l'efficacité des programmes de World Vision euh, Tidiane Camara nekk directeur festivalu Foundiougne festival qui xam ne ci week-end Nous lay am dañuy daal daw dem régie ñëwaat plateau Euh, kon nak bañu ñu euh, ñi nga xamné ñom ñoo togon ci euh, suñu plateau di Ibrahim Camara ak René Gomis dañuy dal di nuyu suñu yenen invité yi Ndeye Maguette Mbay Camara euh wa AGS Ndeye Maguette maa ngi lay dalal ci plateau bi. maa ngi lay fay bu baax baax di rafetlu vraiment invitation bi surtout partenariat bi ñu am ak vraiment RTS 2 ak émission Tam Tam <laughs> donc di sawar sa su nek ñëw fi ci plateau bi pour waxtaan ak yeen du jëm ci ak ak yelleefu doomu adama tout à fait bu ci kanam touti dina ñëw ak euh, Midadi ci euh, connaître ses droits euh, ci souhaite ñu fasciné ci and ak ki nga xamné modi moo Mara Fall Mara Fall réalisateur producteur maa ngi lay dalal ci plateau Tam Tam. maa ngi leen di nuyu te di leen remercier si invitation bi di nuyu ñëpp ñi sétal Mara Zizou Fall bu ci kanamee dinañ and ak mom ànd ceeg gis ci cinéma euh, dañuy daal di dugg nag ci connaître ses droits euh, xam ngeen ne nak jigéen ñi euh, def nañu bu bari ba ñu Maputo ak légui motax nak ñi di jigéenu wa AGS di fasciné préparer ben ben journée bo xamné dañuy ñëwaat ci anan lan la ñu def boobu ba légui très exactement annoncé donc euh, nous sommes xam ne mooy euh, sunu partenaires yi di association des femmes juristes bu nekk ci Sénégal nous sommes su ne dañuy def li nga xam ne mooy euh, bay seen les ci wàllu bi nga des femmes et des enfants filles ci biir Sénégal ci wàllu woowu nag la décidé organiser lii di journée africaine ou ah, wala rencontre africaine plutôt dirais-je fii ci Sénégal ñu nar a waxtaanee ci li nga protocole Maputo fukki attaque ak ñaar bi mu weesoo ba léegi lan mooy défi nga xam jot nañ ko réaliser je le disais tantôt lan souvent tamit moy nek li nga xamné obstacle yi tere mise en œuvre fi ci Sénégal donc euh, maam euh, madame Camara plutôt euh, gis nañ nek que batay sen wal seen ngi koy bay bu baax a baax a ngi ci séminaire yi yéen ngi ci réunion yi tout le temps yéen ngi def luy wane li nga xamné moy mooy njëriñu jigéen ñi ci biir société bi donc tay mën nañ comprendre li nga xamné moy sen activité bi ngeen di mener bientôt li ma bëgg xam rek moy objectif rencontre bi plus clairement pour ñi nga xamné ñoo ñu sétane merci beaucoup Midadi euh, je pense que wax nga ko sax ci sa ben wax moy que ne dañuy jéem sa su nek di bay suñu waar euh, di liguey vraiment ci fësal ak ak jigen mhm. euh ci Sénégal waye dañu gis ne que ne protocole de Maputo wax nga ko fukki at ak ñaar a ngi nii ñu adopté ko Sénégal tamit ratifier ko mhm. donc ñu yaakaar ne que tay ji pays africain yu bari ñu ni way baye suñu war ñun Sénégal non la amé tamit ay femmes africaines yo xam ne seen biir dëkk vraiment ñi ngi def lepp lu ñu mëne ba nga xamanteni ak ak jigen da fay am place am donc ci bir loolu ñu dess décidé organiser grande rencontre africaine moy lan moy dañu wo suñu natango yi nek ci yeneen dëkku Afrique yi dañu wo lu tollok 20 pays Afrique ay femmes yu fa nek yo xamne dañuy liggéey yëngatu ci loolu bu ñëwee ñu mëna a toog ak ñom ku nek waxtaan ku nek ne ñun de Sénégal par exemple li ak li lañu ñu gis ne moo ñu teree avancé ci wax wàllum ak yi rek mhm. waye tamit jot nañoo def li mhm. parce que bo seetee euh, su ma lay jox tay ji ay ay misaal

protocole de Maputo donc on mettre en place parce que quand même le protocole de Maputo charte c'est juste consacré aux femmes comme mhm. effectivement effectivement alors euh, madame Camara comme nous avons dit que euh, donc vous dit que rencontres bi que yu dit que vous avez dit que vraiment vrai presque 20 pays wala lu ba ci nekk ay Tunisie Gambie euh, Congo Rwanda Togo euh, donc suñu ba vraiment pays africains yi bu ñu sañoon sax ne ñëppay pas Mhm. buñ ñu soobee ñëppay mais xam nga souvent aussi y' a problème de financement qui se pose motax tax ndax ñi ñi solliciter. bo batay sax ñuko am na pays yu bëri yo xam ñi ngi koy ñoom ñoo ñuy wóol seen vraiment di nango sa jël seen bop en charge rien que pour mëna féké rencontre bi donc ça veut dire que rencontre bo quatre coins d'Afrique, Afrique la quatre coins du continent bi mhm. ta Dakar boo du 16 au 18 mai incha mhm. comme on le dit ñun dañu na a def Dakar capitale droit de la femme dañoo nar a faire def en sorte que Dakar pendant les trois jours ñëpp day concentré au ci Dakar Afrique yëpp dañuy tëj seen ñëpp ñi liggéey ci walu ak ak yelleefu jigéen dañuy tëj seen bët ñëw jëmale ko Dakar pour xool lan moo fi jóg lan lañ fi jële ci waxtaan bi euh, man li ma bëggoon wax ñu daan yi c'est vrai que jigéen ñi dinañ yëngatu lu bëri ci li nga xam ne moom di ak ak yelleefu euh, jigéen ñi ak xale yi mais le problème qui se pose c'est que de Maputo à aujourd'hui euh, bu ñu doon bëgg a saytu ba laal li nga xam ne am na ko ci avancement jigéen duñ ko mën c'est vrai yaa ngi wax par exemple parité mais parité ça s'arrête Sénégal moo ko am ñu bëri ñee na ñu ci mm-hmm. aujourd'hui même sur la loi euh, la loi sur euh, euh, la nationalité elle n'est pas encore en vigueur parce que n'est un problème actuellement mm-hmm. nous mm-hmm. euh, c'est encore une rencontre de plus dañuy Mumbai tout le temps nous avons wax jigéen Nous nous avons ak je pense que suñu nous rencontrons, nous Mumbai parce que AGS nous bu fait rencontre c'est souvent pour gagner un rapport, c'est souvent pour partager les mais des rapports qui restent dans les euh, tiroirs. non non des rapports yoo xam xam AGS ce pas le gouvernement. je sais AGS c'est une association mais nous, on partage tout avec le gouvernement. effectivement récemment il y a deux ou trois ans rapport on l'a partagé avec le ministre de la justice. Mhm. accompagne parce que quand même on travaille on est on est juriste. donc ñun AGS on on travaille ci suñu liggéey c'est vraiment au contraire bu ñu dañuy xayma li jot li ñu jot def mais dañuy appesantir aussi ci li ñu war def parce que lolo am solo lan moy hmm. lan moy obstacle lan moo ñu teree avancé te à chaque fois buñ ko défé tamit ça nous permet ñu partager ko ak yeneen dëkk yi dëkk bu nekk bu fi jógee tay jii ñun bëgg nañu dëkk bu nekk boy jógee Sénégal boy jógee Dakar le 18 mai hmm. am nga ci sa bir ay bagages hmm. benn keuy bo xamné da nga naan man voilà li ma gis ne par exemple wa Togo def nañ ko te ça leur a permis ñu réussir lenn donc man tamit dina ko def donc ça veut dire que ñun à chaque fois bu ñu def ay rencontre moo tax AIGIS du def ay rencontre africaine lu bëri. tout à fait parce que tout simplement ñun suñu rencontre africaine dañ koy à l'avance mhm. xam nga AGS organisé na fi en 2012 congrès eh des des des femmes de carrière juridique congrès c'était mhm. international parce que ñun à chaque fois bu ñuy liggéey dañuy dañuy bëgg mu nekk liggéey boo xamante ne bu vous ci génnee ku ci nekk da ci am jàngat bu am est-ce que gouvernement a dinañ leen ci Boubar, bu baax ñun euh, côté Bobo. vraiment on a suñu ministre de tutelle boo xamante euh, vraiment maître Sidiki Kaba daf ñu jàppale dafa jàppale AGS bu baax a baax a baax du ñu def dara sans moom suñu date bi l'autre, nous ñu décalé ko parce que à chaque fois day bëgg di fekkee day bëgg di nekk mm. en personne nous jàppale ñu ci ligue. bi côté vraiment luñ ci luñ ci luñ parce que vraiment on a un ministre vraiment qui est aux côtés de la gs que né aussi wax ministère de la femme ministère de la femme aussi on travaille beaucoup avec le ministère de la euh, femme mm-hmm. on travaille beaucoup à travers direction technique bien hein. on travaille beaucoup avec la direction de la famille on travaille beaucoup avec la direction de protection de l'enfant mm-hmm. la donc on travaille vraiment beaucoup parce que ñun appui pour gouvernement gouvernement

li ngeen di dénoncé yàgg na fee xew. Mhm. affaire yi ngeen di wax yàgg naa xew dañ ko doon nëpp nëppal. Mhm. te xam nga fii Sénégal xëy na ñun loolu mooy suñu problème quoi. Mhm. lépp buñ koy bëgg a maslaa wala yaay gis papa boo xam ne violé na doom wala mag boo xam ne violé. lom gars yi bëgg ko résoudre en famille xam nga ne xam nga waaw gars yi ne waaw garaawul sa papa la wala sa mag la mm-hmm. war jaru muy génn si mbedd mi jaru muy siiw mu ngi noonu te mm-hmm. pourtant loolu mooy yàq jeunesse bi mm-hmm. am nañu si bëri ñoo xam ne am ay victime lañ ci loolu jaare na fa yàq seen life ñoo xam ne jaare nañ fa dem cagatu ñoo xam ne jaare nañ fa nekk leneen ak leneen te franchement yéen a ngi dox ay jéego quoi félicitations waaw comme ni ko waxee rek man damay rafetlu juste man damay laajte entrée euh, comment ça se passe sur invitation la wala. parce que euh, sur invitation là, mais xam nga presse bi mhm. on travaille tout le temps avec la presse rawatina ah RTS ñun RTS suñu partenaire la de tout le temps. Mhm. d'accord euh, donc, euh, de toute façon, la RTS sera là-bas. D'accord. Parce qu'on a déjà, on est déjà en train de discuter avec la RTS parce qu'il y a couvrir suñu événement yëpp. Euh, amul un événement bu AGSF. Mhm. comme les Mida dañuy liggéey depuis très longtemps. Mhm. vraiment quand il était déjà dans la presse, même pas encore ci télé mhm. donc au niveau de la presse, la presse sera là-bas. Après, il y aura les, les officiels. Mais comme le mort 5, après, il y a travaux. Effectivement. Ligue, il faut yobu. Donc, ce sera vraiment des travaux. Nous ciblons, nous apporter. Donc, vraiment, mais pour la cérémonie officielle la presse sera forcément là-bas rawatina sur télévision nationale nous allons nous tout le temps. encore plus euh, l'artiste de la parce que gis partenariat bi macha il y a un peu doxal nu donc si axe euh, bing nga andi la laa rebondir mouy session yi. Mhm. li nga xam ngeen mhm. parce que bu weesoo cérémonie mais c'est bien beau nous gis ñi fay une équipe et mhm. tout mais li nga xam session yi sur quel sujet allez-vous vous étendre lan ngeen nar quels sont les résultats attendus à la fin. loolu justement lu am solo parce que ce qu'on voulait ce qu'on comme rencontre africaine de nous bëgg dëkk yu bëri. Hmm. cible pour ñu def seen ay sessions. Hmm. Hmm. parce que de bëgg ku fi comme les mois wax ku fi juggé tamit nga am donc on va demander à beaucoup de pays sur beaucoup de thèmes hein, ce sera les droits de la femme lépp ça va tourner autour de la des droits de la femme euh, ce sera euh, euh par exemple droit à la paix parce qu'il y a des pays qui sont en conflit armé. Dans c'est des protocoles de Maputo, Minchiwa. Ce sera sur, euh, forcément, euh, il y aura des témoignages sur la santé de la reproduction, mhm, parce que le mhm. protocole de Maputo, en son article 14, en parle beaucoup. On a parlé. Il y aura surtout égalité homme-femme. Mhm parce que les gars. parité bi ben parité bi parce que parité bi c'est vrai comme li York c'est c'est un point positif pour le Sénégal. Mhm. mais il y' a un bémol aussi pour le Sénégal. mooy effective bi. le respect donc mais il y a un bu ñëwé par exemple dinañ partager ak ñun ak ñun par exemple ñom c'est ay pays par exemple en matière de droits de la femme quels sont les éléments quels sont les principaux droits de la femme qui bloquent. Mhm. parce que par exemple nañ que le Sénégal droit de la parité am fait avancement nga dem benn dëkk xamné droit de la parité amul droit à droit égalité homme femme amul ben avancement. Mhm. ils sont encore au statu quo nga dem benen deuk ñu euh, rémunération en femme, non dans tel pays nous ça avance un peu mais dans notre pays nous ça n'avance pas. d'une liste de nous les femmes euh, arrivent à être nommées à des postes. Euh, de responsabilité de responsabilité voilà la les ministres les ministres. Mhm. sur 20 ministres les sont sont des hommes il mhm. y en a que. les sujets mhm. parce qu'à chaque fois pays pays invité da ngay pays bind j'aimerais aborder tel tel sujet. Mhm. donc ñu obligé finalement dugalaat yeneen sujet donc sujet yi droit à la santé euh, euh, donc. contre contre le sujet qui fâche. Ah l'avortement bien sûr <laughs> le sujet qui fâche mais qui est le sujet de la gs mm. euh, l'avortement médicalisé forcément ce sera un sujet aussi qui va être mis sur la table surtout quand on prend un pays comme la Tunisie. li nga c'est un pays qui l'a légalisé. tout à fait un pays musulman un pays mm. musulman mais qui a légalisé l'avortement il y a aussi le Cap-Vert à côté aussi mm. donc forcément ces pays là on va vouloir partager avec ces pays-là. Mais ce sera pas le seul sujet. L'avortement médicalisé sera un sujet parmi tant d'autres. Il y a des sujets qui débat. il y a des sujets qui débattent. Fan ngeen ci tollu Sénégal ci avortement médicalisé alors bon justement avortement médicalisé c'est un sujet boo xam ne dafa benn groupe boo est ne à et je ne fais pas partie de ce groupe-là. Euh, la personne personne bi nga je pense que mi daal di xam na ko bi nga xam ne sujet bi moi, il liggéey sujet bi Ami mon nañ peut-être prochainement une émission elle pourra vraiment en débattre à yéen donc c'est pour dire vraiment que ce sera très important parce que vraiment, échange de le Sénégal, Dakar, comme je dis tout le temps, Dakar sera la capitale de la promotion des droits des femmes, vraiment, du 16 au 18 mai. Les sujets, il y en aura énormément. Mm-hmm. Bataille, continue di di di jël di dugal yeneen sujet instant bi suñu problème c'est mooy problème de timing mm. parce que ku nekk yaa y a un sujet bi nga xamante ni moo la intéressé pays bu nekk nañu non voilà le sujet bi ma débat la nationalité c'est un problème parce que il faut savoir que quand même euh, dans le monde déjà il y a quand même 27 pays yoo xam ne la femme ne peut toujours pas transmettre sa nationalité nga en Afrique il y en a encore pas mal de pays comme ay Sierra Leone Libéria les femmes ne peuvent. pas ba tey mënuñoo jox seen. seen Libéria. Mm. encore euh, application déjà il y a des conditions très strictes mm. pour la nationalité libérienne. donc nous sommes sur la loi sur la nationalité lolo indi li ñu woowee les apatrides. Mm-hmm. mooy personnes yi nga nationalité. parce que as dit, euh, les libériennes bu au Sénégal. Euh, accouché xamul papa ak doom wala pas ak papa ak doom ji mhm. doom apatride pourquoi parce que loi sénégalaise par contre dafa pour la nationalité sénégalaise faut que c'est ancien c'est grand-père wala qui a am nationalité sénégalaise donc ça c'est un problème donc tay ji document libéré Libéria Sierra Leone ñoom li leen intéressé discuter de la loi sur la de la loi sur la nationalité xol Sénégal depuis 2013 nan lañ def ba am ko ñeneen droit de la droit droit euh, de la veuve mm. parce que am y a des veuves qui n'ont pas qui ont des problèmes mm-hmm. bu ñu bu seen kay elles sont elles vivent dans des conditions terribles mm. donc l'autre tamit wala ñu leen wala ñu ci kër yi problème d'héritage voilà problème euh, non non am na aussi euh, accès à la terre. Mhm. jigéen ñi nu ñuy def ba am suuf. mais mais mais le problème mi ni c'est-à-dire dafa am yenn yenn problème mu jigéen yoo xam ne. Mhm. est-ce que c'est pas plus culturel. Mhm. que que que que que juridique loolu mais justement problème culturel justement dafa dem ba bëggoon ben instant jël le pas sur les problèmes juridiques. exactement moo tax ñun bo seetee lépp hein problème yi ñu am yëpp Afrique. Euh, juridique la kii la culturel la juridique lépp problème de pesanteur socioculturelle euh, parce que euh, bu ñu waxee pratique néfaste par exemple protocole na Maputo mi ngi wax pratique néfaste moy lan mm-hmm. xarafal jigen par exemple mm-hmm. loolu yëpp c'est culturel donc mais ñun justement la loi est là justement pour essayer rectifier lolo parce que nous lépp moo baax ci culture boo que ñu ne pratique néfaste c'est parce que dafa nekk loo xam ne day yàq la te pourtant ci aada yi la bokk ci culture la bokk donc la loi est là justement pour changer et dañuy seetlu à chaque fois que ñu fexee ba am loi buy tëral lolo fa la ñuy mën régler problème bi c'est l'exemple de la loi loi wu 1999 de ramener Sénégal donte sax am ba léegi mais au moins ñi ngi am solo. moo leen dal seen donc donc ça veut dire. Ah, bu soo xam ne mooy xonk mi ci seen biir la yam yéen a ko waxtaanee. ñu ngi koy dund ak ñi

Euh, dañuy dem former leen pour lan pour que ñu nekk suñu baat parce que ñun xam nañ ne mënuñoo nekk tout le temps mais bu ñu demee ci ñu cee nekk tout le temps donc ñooñu bu ñu leen former souvent léegi kaaw AGS yoo xam ne ñoom ñoo ñu koy indil mm. parce que dañ leen di former wax leen tey par exemple boo leen dajantee kaaw viol

ndaw la pàcc bi gën a am solo et yaakaar naa ne AGS bés mu ne mi ngi ci def ay jéego yu am solo mooy nekk sur le terrain waxtaan ak askan bi très bien alors xam naa ne nag euh, dernière question bu ñu pare très certainement ci journée yooyu di ngeen daal di def benn euh, dossier bu mag benn euh, mémorandum boo xam ne da ngeen di ko remettre les autorités. waaw déclaration la ñu bëgg a def. carrément sax bëgg nañ <laughs> def benn déclaration boo xamante ni dinañ ko def. conseil parce que nous, bëgg ñu que ce sont les femmes africaines jigéenu Afrique africaines, wax euh, Congo rek du Côte d'Ivoire rek mais Afrique yëpp ñoo booloo jigéenu Afrique ñooy wax ak seen i ay gouvernant ne leen am leen lii la ñu liggéey lii la ñu gis ñun lii la ñu bëgg ngeen defal ñu lii la ñu développement Afrique mënut a dem que jigéen mënut a ne mënut a ne il faut mais voilà on est incontournable euh, kon nag xam naa ne dina nekk rencontre bu am solo mm-hmm. euh, mi daan yi certainement moom dana fa nekk ba pare dinañu indilaat euh, li nga xam ne moom la fa taataan di la encore une fois bu baax Ndeye Maguette Mbaye Camara bokk nag AGS. AGS waaye nag dafay toog ak ñun dañuy daal di dugg ci suñu rubrique euh, cinéma euh, tey nag euh, ñuy recevoir sànq maa ngi leen ko doon wax Mara Zizou Fall nek ben réalisateur u TV show live lifeline voilà lifeline mu nekk ben benn film. une série voilà série parce que je suis pas très film pas très série Ben série pour xam euh, entre mëggeen mëggeen mon dafa xew diggante mbëggeel ak passion ak ak trahison mhm. voilà un peu de tout en tout cas euh, foo gisee mbëggeel euh, dafay am passion après passion c'est la trahison danaka daal ci lolou lañuy waxtané ak moom

ñëwaat ci kaw plateau bi. ay cooy faju ko te waxu baa bi bu ko fi sax wax. li may dégg sama kër gi lan la damay gént Jeff toj na fi. real definition of diamond la la jox fi mu nii. yenn mhm. xale yi xanaa du yow. bu ñu dem defi ji ba dem. ndax loolu dama fan yi bari na trop sa papa mere na la xaw ma ndax xam nga loolu wala déet. maam bi waxoon naa la sama gàr classe bi laa nekkoon. sa dox mi ngi bëgg bëri te yow nga ni melo woon noonu avant. sa xaalis yëpp. yàlla ko ci sama traitement yi. ba za ka mara fara ba a Seriously? What? Why can't I have a serious conversation with you without your phone ringing every second? Yo, man, what's the big deal? Take care, dama koy woo ba sonn mu jël sama téléphone. Get out my house. Go. Get, just get out. Yo, what's wrong with you? Just get out. mu nekk euh, lifeline euh, benn série boo xam ne euh, sànq ni ko Bill waxee muy daw ci YouTube actuellement. très tôt sur une chaîne de télévision alors sànq maa ngi koy wax ça parle passion amour trahison Passion, amour trahison. mu nekk yoo xam ne nag moom bu amee rek jigéen ñi moom elles sont scotchées à la télé effectivement <laughs> euh, Mara euh, d'abord d' expliquer lan lu tax nga choisir li nga xam moy Lifeline pourquoi Lifeline ak euh, film bi nga jox ñu détail ci film bi. waaw Lifeline euh, bo xol nekk won premier projet bi ñu jëk def. Mhm. parce que njëkkoon na def ben série bu tudd SNNYC Lounge. bo xam ne SNNYC Lounge. Mhm. boo xam ne New York lañ ko tourné woon et tout. Mhm. ak ay acteurs sénégalais. defon tamit defon tamit benen benen long métrage bo xam ne moko defon ko mooy léyal si euh, lifeline bu tudd mhm. Njumte mhm. so lifeline moy third project bi nga xamne ne lañ taxawal d'accord té ay sénégalais ñoko ko def ñu ci ëpp quoi ay amna yenen mhm. yenen national alors mais ñu si nan nga def ba oui ba en plus ba regrouper euh, sénégalais yoy non fofu da nga États-Unis après nga am idée bobu pourquoi pas me tourner euh, lifeline ou bien casting le won comment ça s'est passé bon casting la woon te lu si ëpp si nit ñi nekk Lifeline ñu ngi doon nekkoon sama première série bi ma leen di wax. d'accord te majorité bi si nekk samay xarit lañ ñooy ànd ñooy nekk ñooy xengaar et tout. ku ci nekk nga wutal ko benn. waaw soo ku si nekk rek dañ ne ok soo xam nga nañu xool ku si mhm. def xam ne deux jours lañ ko def. Mhm. xam ne dañoo woo ñëpp. Mhm. ma woowaat ñi ma doon liggéeyal. Alioune Sine woowaat ñi mu doon liggéeyal. soo ñu def ko casting boo xam ne deux après bañ demee ba si mid season bi amaat nañ tamit beneen casting. boo xam ne dañ ci jëlee si jëlee mooy ñu doon toggeel mooy waa état yi quoi ne ñoo nekk si yeneen dëkk yi. parce que gars yi xam ne ci jëlee ñoo xam ne si état yi lañ doon jógee pour ñëw. di mais état États-Unis toujours. état loolu mo taxone après ñu def casting bi bañ defee casting bi ku ci nek ñu xool rôle bi nga mengol ñu jox lako ko so noonu la Lifeline judo quoi. alors ngeen nek ci seen euh, première saison est-ce que deuxième saison bi prévoir ngeen ñëw Sénégal tourner ko fi lan ngeen prévoir ci deuxième mm. saison bi. bon deuxième saison bi tamit loolu ñu ngi ci xalat mm-hmm. amna benn partie bo xamné xamna ni dañ ko tourner Sénégal incha mm-hmm. mais pour le moment deuxième saison bi ñu ngi koy waajal parce que bu ñu demee xam nga dañ koy commencé démarrer foofu bu ñu demee ba ci biir. Mhm. am bu ko laajee am ay séquences ñu war a tourner fii ñu def ko fi. problème bi euh, mhm. Bill mhm. avant problème bi pourquoi et New York pourquoi États-Unis ngeen di wax wax yoo xam ne ñun la concerné Sénégal ngeen bëgg a euh, yóbbu foofu non du ne sais bon il le concerné mais. non nous, sommes pas forcément Sénégal. parce que déjà les c'est des réalités.

voilà États-Unis pas. Sénégal voilà. waaw mhm. mhm. mais li États-Unis parce que da fay am. Mhm. foofu aussi. waaw ci biir communauté lepp lu ñuy wane lifeline rek. dafa nek lo xam ne sénégalais dañu ciy ndu foofu. voilà muy si côté bu baax bi. muy ci safaan bi. ok te dafa nekk loo xam ne musul am xeyna États-Unis États-Unis xeyna na boo États-Unis rek sénégalais yi li ngay ñëk xalaat xeyna am ño xam ne déggé ni amna série bu défé États-Unis ni xalaat moy immigré bu ñëw sonu sans paper wala lañ amul papier. xam nga wala nek ay conditions yo xam ne mooy mais ñun. dañ fa nekk suñ papa yi indi ñu fa ñu màggee fa jàngee fa xam nga. te teewul bàyyiwul leen teewul waaw teewul mhm. jàngee fa am nañ suñu vie quoi. Mhm. Mhm. ni mu amee ñi nga xam ne fàtte nañ seen culture. moo amee ñoo xam ne tey ba tey ñii seen trois parents la ñuy la ñuy dëkk. laay di def li nga xam ne moom lañ leen di digal. parce que booy xool ci côté bi pon nañ lifeline ci côté bépp. mooy nañ ci côté gis nañ euh, parent bu. bu yee ay doomam naa leen jug leen julli fajar parce que am na fa waaw na nag xam nga gis nañ koo xam ne am nga naqar am nga mhm. dëj say mbokk xarit am di jàmm ñoom di la mhm. dëfal di la jaxal mhm. mooy dese bi bu amee gis nañ koo xam ne tamit yaayam taxaw na li ngay li nga xam ne am na Sénégal ben yaayam taxaw na man man j'ai tout suivi te te si plan boobu dafa am lu ma si jaaxal parce que yaa ngi wax euh, liberté bi ñu am ak yooyu mais dama gis accoutrement xale jigéen ñi ñoom s'habille euh, j'ai pas envie de dire vulgaire mais trop trop trop sexy on voit am ñu daal lu ñu nëbb ah, parce que on voit tout donc euh, donc ma <laughs> bëgg xam comme yéen da ngeen da ngeen yóbbaale seen culture fàtte woo leen Sénégal

dem yóbbu américain eh, comme jazz comme jazz comme jazz xam nga comme ku mel ni jazz ku ni Jeff ku mel ni ku mel ni Mounas dañoo nekk ni ñoo xam ne mhm. seen caractère film bi mën nga nañ ñii bon xooluñu dara ay culture am. Mhm. xam nga soo moo tax nag bu ñuy wane ñun. Mhm. bëgguñu da ngeen di da ngeen di def le juste milieu. waaw bëgguñu nekk naa fekk si li ñuy def. d'accord bu ñuy wane dañuy wane côté bu baax bi. ak côté bu bon bi. dëgg bu ñuy wane bu baax bi dañ koy wane carrément. ba mu jeex bu ñu waneel bon bi tamit duñ ci bàyyi dara. day màgge. waaw man euh, je ne suis pas la série. mais j'ai eu vraiment plaisir sànq waxtaan ak moom ci coulisses yi. Mhm. et vraiment nee à côté tey ci guddi moom YouTube am problème. <laughs> <laughs> moom ñaari problème parce que man tamit ci dugg xool. dinaa ko dem seetaan parce que en fait le fait de discuter ak moi mhm. mon ming ngi may xaw a jox junj tuuti ci série bi et tout. Mhm. mais vraiment euh, xamna ne ça doit être une série intéressante parce que surtout que mi mi mi moom ni il m'a expliqué ne vraiment damay bëgg woné réalité bi. Euh, gars yi yenn saa ñu xaw ko néna xaw ko door ci kaw gi. li ngay wane tout ça mm-hmm. mais wan na ma ne ma non parce il faut ñu refléter lépp benn instant booy wane da wane lépp et c'est ça aussi le cinéma. effectivement parce que aussi euh, boo seetee ñu naan dañuy seetaan. pour wala série c'est mm. aussi pour gis réalité yi leen saay sa mu wan la loo xam yow fi nga tok sa kër gisoo mais mi ngi am ci société bi donc ñoom d'une certaine façon voix ou des sans voix lañu mm-hmm. donc c'est important aussi que ñuy mëna wone wane lépp li nga xam ñun mënuñu ko gis wala dunduñu ko mm-hmm. mais ñu xam keneen a ngi koy dund et que non la fa démé non c'est c'est très important c'est vrai que man bi euh, mm-hmm. seetaanuma euh, li nga xam ne di série bi mais pour ñi nga xam ñu ngi dem New York euh, côté bu baax bi muy wax am na. Mhm. am na ñoo xam ne boo demee seen kër ñu ngi lal ci suuf di añee ci suuf. Mhm. di lekkee loxo. dafay am balaa mhm. dafay am c'est une réalité. Euh, parce que ñu dund naa ko. am na ñoo xam ne ni ma ko doon waxee sànq. boo leen gisee da nga leen di xool. ba laajte ndax ñi ay doomu Sénégal lañu wala effectivement du ay américaine noire américaine mm-hmm. yo xamné fa lañu dëkk mm-hmm. di nga gis ño xamné fa lañu ñu juddoo mm-hmm. màggee fa boo làkkenteeg ñom olof da ngay foog ne Sénégal gi lañu juggé ba demb lañ fa juggé limi wax c'est vrai mais dañu nekk ci un monde de mondialisation boo ne demee foofu nag euh, parents yi surtout il faut que ñuy gën di aar seen doom ce n'est pas facile euh, euh, euh, euh, New York euh, non yombul yombul

nit ñi àndee ku si nekk am nga caractère bu différent ku si nekk am nga noo mel noo xam sa morom mel ko soo ma damay toog gis ki nu mu mel xool ki nu mel ku si nekk si yow sa caractère war naa ko mën a indi quoi si film mais mais que en plus man xam naa ne tey bu ma toppee kii man may nangu rubrique bi loolu moom xam naa ko moom tey moom vraiment nga baal ma di gis ah, mais. mais yaay bañ non xoolal kii rek comprendre ma parce que man série bi dama doon yàkkamti mhm. gis ko xam ne mi ngi ci liggéey pour ma laaj ko dama gis ne que également euh, amouraché wu ci film bi. Mhm. da ngay gis facilité bi nga xam ne euh, sénégalais yi ak jeunes yi fa nekk ñi ngi koy am pour euh, excusez-moi du terme pour s'embrasser wala mm-hmm. ak yooyu ah, facilement ah, très très facilement non donc donc du coup <laughs> mm-hmm. euh, xam nga comme tu disais tout à l'heure dañuy éviter di wane parce que amna na ay parents yo xam mm-hmm. ces acteurs comment ils font pour accepter de s'embrasser facilement voilà tàmmuñu ko donc ñom comment tu fais pour convaincre tes acteurs wala ñom amuñu une difficulté par rapport à lolu bon ñun bon, dañuy liggéey parce que question bi mom xamna ni ñu bëri ñu ko don xaar parce que nga ba tey nit ñu bëri kenn ñëwul ci yéen wax ah, leen lii bi daal di wax leen xam nga ñëwagul woon pour ñu tontu xëy na si question mais gars yi ñi sànni xeer ñoo ngi wax ku nekk yaa ngi joxe mhm. sa xam nga ni nga ko gisee mais ñun xëy na musuñoo musuñu si prononcé ah, parce que du suñu culture xam nga di xëy di fonante xam nga musuñu si mais tey defe naa xam nga occasion la pour ñu wax ci effectivement mhm. parce que damay toll si ñaari ko côté ah. déjà acteurs yi moom comme li ma wax ñun ay xarit lañ même bu dul lifeline lifeline booloon muy góor yi mhm. di jigéen ñi góor yi suñuy sœur lañ jigéen ñi amin góor yi suñuy suñuy frère lañ jigéen ñi mm-hmm. suñuy sœur lañ mm-hmm. so tout le temps foo ñu fekk ñooy hangout ñooy nekk tournage ou pas tournage mm-hmm. so déjà am na benn connexion boo xam ne tey jii nii xamante ngeen bu xam ne tey jii mhm. boo ñëwee c'est plus une famille qu'autre chose ne séquence bi tey yéen ñaañi ngeen war a fóonante ñaañ ñooñu am nañ connexion boo xam ne ah, xam nga sékkuñu dara quoi ah, xam nga moom dafay xam nga ñaañu am nañ ñaañooñu am boo xam ne sékkuñu dara mais dañoo lay mais attends mais est-ce que montage ngeen di def wala dëggantaan lañuy def ah, dëggantaan lañuy def

pays ñëk def film Afrique. mais bo xol avancé wuñu. Ah, mais parce que ñi ñi xam nga ñeme parce que avancé wuñu parce que ah. population bi. population bi dafa tenir en otage cinéma bi. Mhm. wa mais culture bi en fait la. waaw d'accord mais nak mais nag yow culture bi elle est un peu population bi je ne dirais pas tout le monde mais dafa am ben hypocrisie bu ko laal. Mhm. parce que tay bu ñu seetaan film tubaab ñaari tubaab di fóonante. non ñun ñu nekk ñun temps ñu nekk boy dañ dan toog di seetaan télénovela yi ak. Euh, suñuy parents ñu si gis ay fóonante. Mhm. pourtant de suñu culture. Mhm. té do mhm. te loolu kon lu tax muy daw ci télé yi fii si dëkk bi. Ah? Ah, effectivement mais parce que ñu nga seetaan lifeline ñu fóonante. nga seetaan tubaab bi ñu fóonante. xalé yi diko ko mais légui ban non attends ban différence là c'est le cinéma c'est le cinéma. c'est le travail xam nga. c'est le cinéma. parce que damay dégg sax gaay yi di wax banan naan bon lifeline li ngeen def. Mm. da fay yak société bi. Mm. da fay li da fay laa. Ah, mais société bi lifeline. mënu un an waaw avant là, lan moo yàqoon société bi. kenn xamu ko. te loolu yàgg nañu ko dégg. non nag c'est que xam comprendre naa fi ñuy waxee xamal parce que par exemple ku koy suivre. Mhm. jékki-jékki fan benn menace boo xam ne moom sol short ak mhm. daf yaramu neen la yamale. xam nga donc voilà quoi vestimentaire ak les attitudes mais bon mhm. aussi comme comme ni ñu ko waxee rek la société est un peu hypocrite côté boobu il faut assumer. comme yéen a ngi koy def daal il faut assumer. franchement mais loolu quoi parce que buñ koy def defeewuñ ko pour. heurté wala defuñ ko pour. wane leneen dañuy def pour jàngal. dañuy def pour wane ni carrément. ni ñuy wane lu positif. noonu la ñuy wane lu négatif du ma sax parce que jàppee moo ko lu négatif. parce que loolu xam nga góor ak jigéen. ci mbedd mi xam nga góor ak <laughs> génn am na affaire yoo xam ne dina xew. ci mbedd bi parce que loolu am na fa am na Sénégalais yi taxaw si mbedd yi di bu doon Sénégal lañ tourné lifeline duñ ko def parce que amu fi. Ah, ah. Ah. bu fi tamit hmm. gi lay wax gis nga xam nga wax <laughs> non waxante le problème. <laughs> c'est vrai euh, mi wax on a peut-être une société assez hypocrite. Mm-hmm. mais sur gi. motax dafa am xam nga par exemple nga mi euh, euh, euh lifeline ak mm-hmm. peut-être ça peut ne pas me choquer mm-hmm. mais nga mais voilà. ah mais surtout léegi xam nga. telenovelas dañ ko daan seetaan suñu maam mhm. ah. ah waaye bu egsee foofu nag. ñoom ñu ñu zappe kuy zappe ah, ah, waaw man de bokk man temps may ñun temps ñi nekk booy. nday màgget ñun ancienne génération bi la. yàgg naa leen américain waaye nag war na ñun temps ñi nekk booy yàgg nañu seetaan. waaw telenovelas yi ak euh, ak ñuy fóorante suñu kanam ñu koy. seetaan nañ leen jàll ci leneen. xam nga mais. mais loolu la loolu la dëgg nag laataa ñuy zappe fekk na le coup est déjà parti. parce que diggante zappe.

ni production dafa metti comment vous vous, en sortez surtout ci budget beeg. waaw foo leen di jëlee Oui. non na trop. Mhm. parce que Lifeline mën naa ni bi commencé ba xeyna sax avant série bi di jeex sax lañ commencé di am ay quelques sponsors et tout mais production bi yëpp ñoo ko defal suñu bopp. ak sa xaalis suñuy propre moyen xam nga muy man Alioune si Khalifa. xam nga dañuy ñëw investir quoi. Mhm. si lepp lo xamné vraiment da ko laaj. ñu investir suñu xaalis investir suñu temps. soo moo tax lu bëri tey boo ko gis suñuy xarit ak. acteurs yi da ngeen di leen fay ou bien puisque ay xarit la dañ ci jàppale. bon acteurs yi commencement bi daaw ah, ah, ah, ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan mu gën a bëri xam nga ñu mën a fay ñëpp Mm-hmm. franchement xam nga ku si nekk li nga war a am ku si nekk li nga xam ne liggéey nga ko si nga jëriñoo si incha allah. Mm-hmm. alors est ce que xalaat ngeen euh, euh, bien vrai lifeline ñu mm-hmm. euh, ñaa ngi koy seetaan amuñu ko kii <laughs> ma lifeline les gens le regardent bien ñu koy suivre bu baax mais est ce que xalaat ngeen def fi benn projection wala yenn projet yooyu noonu. inshallah allah espace deuxième saison inshallah d'accord d' accord waaw bu deuxième saison passé parce que première saison bi. dañ doon ñamal rek 24 épisode la ñuy ñamal gars mhm. li ñëw si saison mo ëpp. moy mais ay contraintes quand même ñu am ci première saison bi moy bu ñu épisode bala benen bi di ñëw. on comprend pas mais xam elle est mais question bu am solo nga mhm. parce que lool tamit ñi ñukay laaj mais les nekk dëkk bo xamné liggéey. ñi di mhm. temps amul. ah non xam nga pour regrouper. ñaari acteur wala ñett acteur pour ñu def séquence mhm. day metti parce que bu kii libre kee mu ngi liggéey mm. wala bu kii di mm-hmm. liggéey kee ngi jàngi mm-hmm. soo loolu dafa metti parce que sama papa def ma koy wax daf ne moon def ngeen fi loo xam ne ñun ex nañ fi laaj def nañ fi plus de trente ans mënu mm-hmm. fee am parce que dëkk bu biis bu mel ni New York nga def fi série dajale ay jeunes yi nga xam ne jeunes yoo xam ne ku si nekk yaa ngi ak say business yooyu dox dajale def série. mais ba première saison ba mu jeex. bon am. Hmm. dama bëgg comprendre ñu côté hmm. dëkk bi ñu et puis waaw dafa dafa metti ñun ñun suñu la suñu. waaw hmm. il faut ñu leen di comprendre il faut ñu xam am ay vie. xam nga ñëpp lu si def nañ ci ay sacrifice yoo xam ne tey mm-hmm. xam nga moo tax tey affaire bi egg fu mu egg mm-hmm. parce que dëkk bu mel ni États-Unis nga fay nga nga fa nga bëgg a diviser nga bëgg a diviser chaque chaque semaine mm-hmm.

Marceline nekkoon na si elle a nekkoon na Marceline ak euh, quelques like am na ñoo xam ne comme ñu mel ni David mhm. la Linguère ñooñu bokk nañ sama projet bi ma njëkkoon def mhm. xam nga ñooñu ñoo bokkoon nañ ci parce que joué nañ si am nañ si expérience parce que loolu tamit série la woon voilà mhm. c'est ça so ñi si des nag moo nekkoon seen premier moo nekk seen première fois seen première expérience en tout cas Mara dañ lay souhaiter euh, vraiment euh, yàlla na li nekk seen kanam mu nekk succès bu baax amiin amiin mais voilà avant Bill daal dina nekk américain nee na congratulations <laughs> xam naa ne day moom moo xam naa daf ñuy topp quoi. non non euh, kii kañ ngeen di yóbbu. non non ad ah, vrai vrai moom kay mën na laa nettali. et je l'ai suivi je l'ai suivi li tax ma xam Lifeline. c'était mhm. lors d'un récent voyage euh, au mois de mars. Mhm. je pense mars ou avril. Mhm. donc je m'ennuyais may tapé tapé gis ko rek. j'ai suivi les 26 épisodes en 3 ou 4 jours. là ouais. bon kon am nga fi euh, <laughs> boo leen di dem mën ngeen ko yóbbaale. Hein. en tout cas encore une fois, euh, Bill, euh, Mara, plein succès, congratulations. et puis, euh, bu Sénégal. Ah. non Sénégal Sénégal non non Sénégal mm-hmm. <laughs> en tout cas nous vous plein succès c'est vrai que AGS. Mm-hmm. Mm-hmm. ça a été un plaisir nous et puis yéen tamit di leen souhaiter plein succès ci li ngeen di waajal. merci beaucoup Yolande vraiment di remercier waat euh, RTS2 mm. euh, di gën a féetali suñu kóolale ak ñoom vraiment di dëggal le fait que ne vraiment partenariat la boo xamante ni ñun ñi ci gis ñi ci am lu bëri bëri ñun AGS en tout cas parce que yéen ñuy permettre saa su ne vraiment ñu def suñu liggéey. Mm. saa su ne ñuy fësal suñu liggéey vraiment RTS2 moom naa leen vraiment c'est la télévision partenaire de l'AGS ñuy remercier encore. yéen a tax ñu nekk fii Mara di la jaajëfal. waaw maa ngi di jaajëfal di leen remercier. si invitation eh, bi. Bill Gates midaad yi. bii moom bii moom may naa la ko mën nga ko yóbbaale. xam maa leen di franchement ñu ngi leen di remercier parce que instant yi dañ fi ñëw pour euh, def promo deuxième saison bi dañuy delluwaat. dans deux semaines incha mm-hmm. pour continuer liggéey parce que xam nga gars yaa ñuy xaar. Mm-hmm. non yàlla ñu ñi seuf ñi ñi seufal ci YouTube bi quoi ah naa ñu gaaw leen. non non yàlla na gën a yomb yàlla na gën a yomb. amiin amin amin amiin alors Bim à la semaine prochaine. avec euh, Yakham waaw dama lay remercier di la jaajëfal di remercier madame. Euh, Mbaye madame Camara mm. euh, ci diko oui oui. oui motax tax gisoo ma ne Mbaye daal di tek ci Camara bala ñoo ñu dóor. Ah, comprendre lépp nak di lu liggéey bi ngeen di def machallah di remercier Mara di la euh, bonne continuation keep on like this. Merci euh, oh. <laughs> remercier Midadi bon Dylan, euh, je vous rendez-vous semaine prochaine. Inch'Allah ma cinéma comme toujours. Médali ben euh, contente de partager ce plateau avec yow ak madame Camara moom c'est une habituée. Mm. donc Mara également euh, un des acteurs faut le dire mais malheureusement nous ne sommes pas là. di leen euh, remercier bu Habar parce que c'est pas facile nous, fi pour la promotion mais bon ils sont vraiment accessibles De remercier également ñi nga tout le temps ñoo nous donc euh, comme tous les mercredis d'habitude dañu waxtaanee connaître ses droits ak ay sujets mais tey suñu partenaires donc il faut ñu taxaw Hamna, di len jox rendez-vous rek euh, le 16 17 et 18 incha allah fii ci Sénégal di souhaiter un très joyeux anniversaire par anticipation euh, ki nga xamné moy di Abibala il se reconnaîtra voilà. Mhm. alors euh, merci encore une fois mu nekkoon nak tay sen émission di jaajëfal bu baax ñi nga xamné ñom ñoo tamo safo 17 ans. tam tam suba ci benen tam tam bu soobee ki di may.